Salut les amis de Baba Show, merci encore Gaël de la confiance renouvelée, merci de vous des likes, merci de vous des abonnés, merci également Gaël chaque fois de partager, commenter Gaël, de abonner, de like, surtout de agrandir famille, bi partager vidéo yi. ñoo la ko waxoon nag Gaël tey le mai ñu bëri nag jàpp nañ li nga xam mooy donc anniversaire Bob Marley mais nag dañuy wax également euh, keneen ko xam ne tey Sénégal waru ko fàtte ah muy koo xam ne aussi histoire am histoire bu tragique la muy koo xam ne militant politique woon nekkoon intellectuel muy Omar Blondin. Diop Omar Blondin Diop nag gars yi moom ah, mi ngi eh, gaañoo ah kaso la gaañoo donc moom eh, ñu ngi ko jàpp ne mi ngi gaañu ci guddi 10. jëm 11 mai 1973 ci prison bi nekkoon Gorée mu prison Fort d'Estrées ah nekkoon Gorée version officielle bi nag dafa ne dafa xaru loolu version officielle bi wax Omar Blondin Diop nag gars yi bokkoon ci génération bi nga xam ne nag mouvement de contestation bi ngeen doon dégg muy mai 68 bi amoon Sénégal ah mouvement contestataire mai 68 wax naa ci ah moom nag nekk bokkoon na si ñi nga xam ne nag gars bokkoon na si ñu ko doon mëne donc bis bi nga xam ne nag Omar Blondin Diop dafa daal di dëddu àdduna ci histoire bi li mu wax mooy que ne euh, jour boobu noonu Omar Blondin Diop na dañ ko doon dóor dóor yu metti kaso ba mu nekkoon donc dañ ko doon dóor-dóor yu métti ba yóbbu ko infirmerie ah ba nga xam ne sax infirmier bi nga xam ne moo nekkoon euh, chef de poste bu Île de Gorée ah, ne woon nañ ko évacuer immédiatement fa nga xam ne nag moo nekkoon pavillon spécial bu hôpital Le Dantec tellement dañ ko doon dóor-dóor yu métti mais laata boobu nag Omar Blondin Ndeye Diop nag dañ ko jàppoon ca Mali boobu fekkoon ne dafa nekkoon di euh, waajal ab euh, évasion boo xam ne benn détenu bu nekk Sénégal ah. donc bu mu ngi nekkoon Gambie lañ ko lañ ko njëkkoon kii Mali bokk lañ ko njëkk jàppee fekk nag boobu comme je l'ai dit rek euh, benn frère am bokkul la doon jéem a waajal pour mu évadé donc ñu daal di koy daan nag ñetti atu kaso ah ca 1972 pour atteinte à la sûreté de l'État lañ ko jàppee 1972. moom nag frère am nga xam ne dañ ko jàppoon à perpétuité maanaam dañ ko tojoon à perpétuité frère am nag mooy Omar Diallo Diop. Kemlo bi nga wax ne nag moom wax na journal Jeune Afrique d'accord que ne bu góor. ah dafa porté woon ah, plainte pour homicide d' accord donc juge boobu nag ah, ñi nga xam mooy juge bi daal di daan ñetti ah, policier mais dans la semaine bi nga xam ne nag moo moo moo moo ci topp d' accord wax ne rek amula wax ki nga xam ne mooy donc euh, lii di euh, jëm ci Omar Blondin Diop moom daal gars yi comme je disais mi ngi juddu donc euh, mu ngi ba muy gaañu bi ngi am vingt six ans la am vingt six ans la Omar Blondin Diop amoon vingt six ans moom nag ca Niger la juddoo papa ay ay waajuram nag sénégalo malien lañ d' moom nag nekkoon étudiant bu brillant intellectuel nag africain nekkoon étudiant boo xam nag jàng na école normale supérieure bu Saint-Cloud Saint-Cloudin boobu nekkoon ca Lyon nekkoon aussi koo xam ne ah 1969 euh, lañ ko dàqee ci école ba ndax la dafa nekkoon amoon engagement syndical bu bu bu bu farouche xam la notamment ci événement yi nga xam ne moo amoon ci loolu tax na ñu daal di koy dàq après. kooku nag gars yi moo nekk Omar Blondin Diop ci jàng-jàng bu gàtt ñu ci mën a wax ci moom moom nag gars yi li ñu ci mën a wax rek aussi mooy que ne euh, ki nga xam ne mooy donc Bouba Chinois ngeen koy dégg moom nag ci ay waxam nee na moom Omar Blondin Diop ñoom ñoo nekkoon doon fa nga xam ne mooy donc ca prison bu Gorée et que gars yi dañ ne Omar Blondin Diop dafa xaru euh, la jël daal di koy takk ci baatam daal di xaru mais moom nee na amul nee na Senghor moo waxoon nañ ko daal di pendre loolu daal bu ba Chinois daal di wax nekk donc kooku nag nekkoon gars yi histoire bu gàtt bi ñu leen doon jox ci nga xam ne donc Omar Blondin Diop nekkoon aussi un philosophe ah bu inlassable un jeune patriote boo xam ne aussi gaay yi noonu la ñàkkee euh, bakkanam donc moo tax nag gars yi euh, parfois day baax ñuy fàttaliku histoire ñenn ñi ah, ñoo xam ne aussi muy ci lu baax wala muy kii ci histoire du Sénégal daal la bokk ñuy ñu leen di fàttaliku gars yi kooku nag mooy donc histoire Omar Blondin. Diop muy gaañu nag li ma la wax ci bis bii di bisu 11 mai woy leen di la gars yi woy leen di abonné on avance ensemble gars yi toujours avec Baba Show et sportive yi jaa jëf